jàmm ja nga xam ne moo tax ñu fal ñu jàmm jooju la ñuy woote waati Sénégal ba léegi ak ku fi monti ne it jàmm la ñuy woote ndax jàmm ci la lépp ne réew mu amul jàmm dara xamul kër ba amul jàmm dara amul nit amul jàmm dara amul chef de village yëpp nag taxaw nañ ci turu président Mamadou Mazor Faye oote jàmm ci ñu def ko ci jàmm ci calme mu am ci jàmm kenn ku ne delluwaat ci la nga nekk loolu moo ñu ne si ñun Mountakha mooy njabootu mbooleem Sénégal président ne kon lal war ñu ñun ak ñi koy coordonné demee ni ki président régional bi nga xam ne mooy El Hadj Moussa Amidien bu Diourbel ak El Hadj Babacar Ndiaye ci xalaatam bu rafet ñu ne ah kenn waruñu faa jiitu nag ñun chef de village yi. président ànd ceeg ñoom ànd ceeg ñoom di ci dox am ngant tey mu yebal ma man en tant que trésorier national ne demal ma teewal ma Touba lañ fay am nga fekk fa ka nga xam ne mooy président ba ak mbootaay gi nga xam ne ñoo jógee koo fi ngeen ànd. ngeen yëkkati ko jébbal ko sëriñ bi mu nekkoon mili euh, euh, million. ak téeméeri junne ak ñeen fukk ak juróomi junne ak lu topp moom lañ indi fii tey te di la wax ne si lu gàtt sax lañ ko lijjanti ndax bu Sénégalais bi ñëwoon mu ëpp lii.